kon ñoom mën nañu ñu jël constitution bi nga xam ne moo leen tënk ñu def élection mars ñu gagné seen majorité ñu sukkandiku ci majorité benn dese assemblée nationale daal di taj constitution bi mën nañu bañ a yem ci article boobu bu ñu defoon seen session xam ngeen fu ñu jëm. kan est que yéen xam ngeen ko. tout était possible mënoon nañu changé constitution article bu la neex mënoon nañu jaxase. tout le schéma institutionnel du Sénégal. mais le président de la République a le dernier mot à travers la promulgation. Euh, dinaa ñëw ci loolu. man euh, ah. euh, defuma débat juridique dama leen di wax politique dama ne la loolu mooy xaar ba cere ji tuuru ak ñeex bi nga naa ko for rassemblé waat ko bu ñu demee ba assemblée nationale ñi nga xam ne dañu perte pouvoir mu dese leen majorité assemblée. jëriñoo wuñ ko leneen lu dul jaxaseeg institution yi bu ko defoon yow mii di wax nga baal ma ax yaay njëkk a jóg ne sant ñu leen loolu d'accord kon mhm. pour man bu fekkee loolu dafa am ci assemblée député am attitude boobu nga xam ne dañu la sant defar ngay xeexee institution bi nga yor président bi lan moo ko dese bu buntu gàttee da nga yuur bunt bu gàttee boo melee ni njool mi Omar di dugg da ngay sëgg ba sëggul doo dugg buñ la galgalee da ngay rocci galgal. d'accord rocci galgal mooy nga dugal sa priorité mais rey temps amul ci match est-ce que président bi dafa poser acte boo xam ne bii dafa viole benn texte bu leen bàyyee ñu def session ñu yàq réew mi. tas institution yi def lu leen neex duma leen bàyyi ñu def session waxuma ne noonu la raisonné de man de raisonnement boobu laa accepté beneen prérogative bi mooy tas assemblée kooku nga ne amul problème ñi mu war a laaj ñëpp laaj na leen mu tas ko li leen naqari mooy que ni mu def ba am résultat bi mu def dafa jaar ci fixer date de treize date boo xam ne c' est au delà du douze bi mu mënee bu mu mënee tas. Mm-hmm. kooku boo ko defee ñëpp dañuy yaakaar ne doo tas waaye nga yaakaar ne doo tas yow yaa ko yaakaar waaye man xam naa ne dinaa tas te dama war a tas te tas na. coow li est pas le passé c' est l' fu ñu jëm est ce que assemblée nationale bii li mu wone ci comportement député depuis naissance am ca liste ya depuis procuration yi ñu jox benn député pour des députés présents ñu toog depuis dàq bi ñu dàq Mimi Touré depuis li fa am yëpp mu jóge ci côté yëpp ba léegi ba ñu toll fii ba assemblée nationale foofu laa jeexale mais mais mais j'ai l'impression président que quand même vous êtes en train de fuir le débat sur le respect de la parole donnée. non non non maa ngi ñëw ay man ma fuir débat xanaa xamee ma yow nee na xamee nga ma man du ma fuir débat assemblée bi dem na. ba proposer loi pour augmenter mandat président de la république ba décembre yéen fekkewu leen ko kan moo ko weddi du conseil constitutionnel. Mhm. mandat président de la république constitution wax ni mu demee mu prolongé ko ba décembre. kooku boo ko joxoon session extraordinaire mu dese sànn sànni tàccu lu ko neex def ko. le Sénégal dafa frôler crise boo xam ne bu dul woon décision jomaay bii tey leneen la ñuy wax moo tax ma ne dafa yeewi askan wi. maintenant ci biir yi loolu yëpp yéen li ngeen ci gis mooy que jàppoon na le treize avant le treize di soudre bi man loolu choqué wu ma parce que li mu sauvé li mu sauvé moo ëpp importance leneen li pour man loolu c'est secondaire fi mu ne nii nañu seet nu ñuy amee ay député yu xarañ yu am njëriñ Sénégal am institution mën a fonctionner quelle que soit la majorité loolu mooy yoon mais kenn du fooye assemblée nationale. il a sauvé le premier ministre. alo euh, Ndeye Fatou est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui ak li président euh, Boubacar Camara wax par rapport ak le dernier point qu'il a qu'il a ah man kay moom de choqué wul ci le fait que président joxe décret te li mu def ci décret bi mujjul am mais man moom choqué na ma en tant que républicaine parce que dama gis décret numéro deux mille vingt quatre 1880 daté du 4 septembre signé par le président de la République contresigné par le premier ministre convoquant l'Assemblée nationale pour une session extraordinaire pour man loolu c'est solennel loolu du lu ndaw parce que décret présidentiel amul lu ko gën a fort ci réew bañ nañ ko ba kenn moo koy signé muy président ki koy contresigné mooy premier ministre muy ñaari personnalité yoo xam ne ñoo boot exécutif et que du ñu ñu ndaw léegi nag il se trouve que ñaari personalité yooyu nen ne ce sont des ami xam nga dañ doon def campagne Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko président bi muy janoog presse bi mu ne sama xarit la te suñu relation ñu ngi ko gën a solidifier ci biir kaso bi nga xamante ne fa la ñu nekkoon mais la question qu'il faut se poser mooy est-ce que amitié boobu dafay tiim république ak état du Sénégal est-ce que au nom de cette amitié war nañoo signer un décret di duper l'Assemblée nationale di rater di rater un rendez-vous très important mu nekkoon une déclaration de politique générale maanaam feuille de route bi ñu waroon a tracer pour liggéeyal ko askan wi ndax loolu une amitié mun nañ ko ko jëndee et aussi nen ci biir amitié boobu président mu ngi wax y une crise institutionnelle c'est vrai parce que diggante primature ak assemblée nationale crise am na ci mais crise bi fan la jóge ak lu ko indi ñun dañu nome un premier ministre ñu jàpp ne quatre-vingt-dix jours après war na def DPGM comme ni ko yeneen premier ministre daan defee ci moment yu normal yi et bizarrement le premier ministre joxe woon na not au mois de mai demandé beaucoup de direction et de ministères ñu remontel ko des informations pour mu préparer DPGM donc ñëpp xaaroon nañ premier ministre kon def DPGM mais diggante mois de mai ak juin lan moo ci xew ba DPG boobu ñu ne dootul amati c'est la question bi ñëpp bëgg a posé wu parce que jàppoon nañu ne lu waroon a mën a nekk la alors ñu dégg des députés de Yewwi ñu def ay conférence de presse wax ni premier ministre bul ñëw assemblée un député comme Guy Marius Sagna bind ni premier ministre bul ñëw ab assemblée premier ministre répondre ne du ma ñëw léegi ñii dañ defar seen réglement intérieur sinon d'ici le 15 suñ ko deful ma def ko devant une assemblée populaire coow li fa la commencé bi mu amee président de la république ci la janoo ci diggante bi ak taskatu xibaar yi moo tax tey jii ci semaine bi bi ñu waxee ne président day def adresse jeexi jaaxa am parce que le 13 sept juillet moom la defoon janoo ak taskatu xibaar avant le 15 bi premier ministre joxe woon dat moo tax loolu mu jul am moo tax bi mu joxaatee aussi date ci adresse ñu ne ah soo moytul kon mooy ñëw defati li mu defoon ci juillet maanaam wax à la place du premier ministre et bizarrement c'est ce qui s'est passé parce que à la veille bi ñuy xaar DPG ci la président def adresse pour wax ne tas na assemblée nationale président ñun xam nga ne Sénégal dañu am respect de la parole données muy doon loo xam ne ndono la ndonay mag ñi la valeur intrinsèque bu ñuy joxante de génération en génération